juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo ci cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam mooy importé waaye am nañ ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi waaye xamuñ fi ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci juróom benn fukk ak ñeent yu tëddee nii juróom-benn ci Dakar Plateau ñeent ci Mariste ak Rufisque ñett ci Point E Ouest Foire ak Thiaroye ñaar ci Waagu Ñaay HLM Montagne Wokam Almadies Mamelles Parcelles Assainies HLM Grand Médine Guédiawaye Kër Massar ak Mbao benn ci Médina ci Rëbës Cambérène ci Rëbës Centenaire Gueule Tapée Dentali Dieuppeul Grand Dakar HLM Castor Liberté 4 Sicap Foire Cité Impôts et Domaines Diamniadio Gounass Wakhinane Grand Mbao Sicap Mbao Pikine Cité Takko ak ci région yi am nañ ci juróom-ñaar fukk ak ñeent yu tëddee nii fukk ak ñaar ci Thiès fukk ak benn ci Mbour juróom-ñett ci Kaolack ak Kolda juróom-ñaar ci Saint-Louis juróom ci Popenguine ñeent ci Richard Toll ñaar ci Kédougou ak Diofior benn ci Xombol ci Louga Makakoli Bantang Ngaparou Saly Somone Sédhiou Sokone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 ñeneen ñi des hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaabu njëkk ba Sénégal wëññi na wéeri junni ak ak juróom ak ñaar téeméer ak ñeent ak juróom-ñaar xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar ak juróom ak juróom-ñett ak juróom fukk ak juróom-ñeent wér nañ ci juróom-ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñàkk seen seen ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ministère de la santé et de l'action sociale muy ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xar leen àjjana di ñaanal ñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm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 bés bu nekk di continuer di ko wéy di ko di ko jëf di bàyyi xel ci seen rendez-vous pour mun a jot ci deuxième dose bi ñu war a jël enfin bu ñu fàtte tamit di denc seen carte de vaccination bi nga xam ne saa bu ñu ñëwee ci centre de vaccination moom la ñu war a wone ministère de la santé de l'action sociale mu ngi leen di sant